francs loge 5000 francs petit nee ngi ciy ànd ak pro bi xew ci jamono si tëbu ngor caatu rëbës le 6 mars stadium Iba Mar yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare ñu ngi toog ak Ama borom le 9 mars mu tëgg combat bu neex diggante mbañ Kaïré mi nga xamante ne doom la ci Boy Kaïré ak Ardo mi nga xamante ne yaakaar naa ne mën nañ ni géej waaye ak ak ak kii fiiñ mbiij fiiñ mbiij lañ koy waxee côté yooyu yëpp dañoo am yaakaar ci moom ndax mën a bëri bi nga xamante ne gis nañ ko ci moom mu nar nekk làmb amateur le 9 mars incha allahu rabbi fii ci arène nationale bi Ama Diop moo ko tëgg borom Ama Events dafa lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet Ama Events la wala Ama Dia production en tout cas daal Ama Dia xamante ne làmb ñëpp dañ ko war a wuyu si ndax képp ku nga xamante ne tëgg nga fi journée rek taq na ci rip ba ci CNG bi bu fekkee am na lu ñu organiser Ama Dia nekk ci organisation boobu noonu kon yaakaar naa ne jot nañu delloo ko njukkal bésam boobu noonu képp ko nga xamante ne bokk nga ci axlu làmb rek nga ñëw jàppale ko ñi nga xamante ne ñooy amateur yi ñu si ko maa bu baax a baax di la ziar am Lamine maa ngi lay fay ginnaaw ban sant yàlla julli si yonent bi ñu gërëm suñu ñaari waajur bu baax di sant suñu sëriñ sëriñ Babacar si di santaat suñu sëriñ Mame Malick si di nuyu suma papa Yoroja taalib Mame Malick borom di karno maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa yëmbal yëpp di nuyu monsieur le ministre Amadou Hott maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu mon frère Djibi Diaw maa ngi koy nuyu di nuyu parrain bi Omar Sow maa koy nuyu bu baax di la nuyu Lamine di nuyu Beuz suma frère di ma jàppale si bis bi accompagner ma di ma sottante ay xalaat lépp maa ngi koy nuyu bu baax di leen siyaar. comme ni ma ko waxee le 9 mars nga tëgg combat espoir combat ñaari ndaanaan ay xale lañ mais ay jinne lañ ci bëre wane nañ seen bopp ñu ñeme xeex bëre ragaluñ ci dara lan moo tax nga taxawal boobu. waaw Lamine combat boobu xam ay. boo xoolee ay ay jeunes lan ay espoir lan tey jii ñu dugg si làmb xam xale yi boo xoolee làmb ji am na ñu ko pour promoteur yi ko bëggoon bari na trop mais ba ma xoolee ma nuyu passage sama rak ma ndax tey ji mu taxaw ne ma ardo ak mbañ kere est-ce que doo ko taxawal comme que yaa ngi jëm si journée mu ne ko mun naa ko taxawal ma woo Assise moo yor ñaari mbëri ma waxtaan ak moom ñi déggoo ma waxtaan euh, Père Kayre ñu déggoo ñu xëy suba ma jox Fatma Dia avance ne leen yóbbul leen danoo xëy rek gis ko sunu làmb combat bi taxaw yaakaar naa li naan nit doo jël lu dul sa wërsëg xëy na man sama wërsëg la moo tax ma dal si tëgg ko mu nekk làmb joo xam ne nag Sénégal yëpp yàkkamti nañ ko ñu ñëw tëgg ko le 9 mu tombeek mercredi mais ñun yaakaar naa ñu loolu pour tëgg mercredi ndax tëggoon nañ fii suñu première journée fi si arène nationale mu nekk jeudi mais yàlla def ni làmb ji daa fees dell kon boog làmb ji man aw ma si xel ñaar di woo amateur yëpp ñëw jàppale ma accompagner ma si bis bi surtout promoteurs yi promoteurs yëpp laa woo pour ñëw accompagner ma jàppale ma si bis bi ndax seen rak seen doom seen xarit moom moo xewle pour le neuf fii si arène national maa ngi si woo ñëpp daal ñëw accompagner ma jàppale ma bis des damaa tëggaat beneen combat boo xam ne spécial la ma rendre si hommage Doudou Yaye Kati ndax yaakaar naa Doudou Kati ñëpp xam nañ ko si làmb suñ ko ram rendre hommage yaakaar naa ak lu làmb yëpp lañ ko defal kon ba nag ba mu si woowee Père Begaay wax ko aussi tamit moom mu rafetlu ko ne drapeau bi sama drapeau la lépp luñ si mën dinañ ka si def ñëw accompagner jàppale si bi ba si du jaan jekko nee na ma li nga def rafet na trop mais doo si wéet daal lamin daal li la xamal ni ma ne la le neuf fii si arène nationale dina metti dina tàng dina neex ndax am na yeneen folklore yi si mën am ku si mel ni waa yëmbal yëpp di ñëw def fii di gis cosaan daal. journée lamb cosaan nga ko bëgg a def daal journée cosaan. non di nga gis cosaan nee la waa yëmbal képp kuy artiste yëmbal ba si njàng faramaane sax dina ñëw ndax nee na ma bis boobu bis waa yëmbal la farloo bi dina ñëw na yeneen artistes yoo xam ne ay comédien dëkk yëmbal ñoom ñëpp dina ñëw si bis bi ndax doomu moo xewle. ñoom ñëpp daal jox nañ la seen naa la fii dina jëngu te yaa koy def en direct si kattan suñu boroom ndax Beuz suma frère la nee na ma lépp loo bëgg lu ne di si taxaw aussi tamit di ko sant di ko gërëm ndax fan yii déggoon si ay coow xam nga si entre ay ay sites yoo xam ne ñëw di ko attaqué mais danoo wax ni Sénégal ñoom dofuñu ñun xam naan Beuz yaakaar naa lamb bu avancé tey ji ba promoteur yi gis seen bopp ginnaaw yàlla moom la kon boog nañu bàyyi doomu Sénégal boo xam ne day ñëw di liggéey. ñëw di ko accuser di wax yoo xam ne wax yoo xam ne kenn xamewu ko mais yaakaar naa nee na borom day ju liggéey ku ko yéene da ngay fande te ji yaakaar naa xolom bu rafet moo ko setal xolom bu rafet ak liggéey bu muy liggéeyal doomu aada yi moo ko setal kon boog nan bàyyi nit koo xam dafa ñëw di jàppale làmb ngeen bëgg a faxasal loolu mënut ta nekk dem leen ngeen dem seeti leneen te bàyyi bës mu liggéey ndax làmb da kaa soxla làmb yaakaar ko pour événement yi muy def kon Sénégal yëpp ñu ngi sa gannaaw ak lu làmb promoteur yëpp ñu ngi sa gannaaw gis nañ sa liggéey set na moo tax ñu ànd di liggéey ak yow mais di la wax Lamine yow tamit kenn du yow tey ji yaakaar naa làmb bu avancé cent pour cent am nga si wàll tey ji boo xoolee fekk nga fi si ay mag ñoo xam ne ñoo nekkoon si làmb mais tey ji làmb kenn du tudd te tudd ñu la loolu nag sant yàlla la bu baax a baax. macha allah léegi euh, yeneen neuf combats yi ñeneen ñan la. yeneen neuf combats yi ñu ngi tëgg Bathie Seras ak Bato mm-hmm. Bathie Seras moo nekk yëmbal. bato moo nekk Grand Yoff mbooloo xam nga la nañ si Boy Bombal ak Plateau. Plateau benn dañ siy bëre ñoom ñaar ngay nuyuwaat Pape Pape Pape Seras ak ceeb bu xonk dañ siy bëre ngay nuyuwaat Baye Fall xam nga bu bu yëmbal dina si boole ak Ngaylum bu Mor Fadam ñu amaat si beneen combat boo xam ne Pablo war na si mën a bëre ak euh, lagros bu Doudou Bakassar ba pare ñu indiwaat euh, euh, kii. ay dër bi daal nga tëgg. non yaakaar naa ñu indiwaat euh, doomu Alioune Seye. bu sa saw. war na si bëre ak Mamady Diouf. turandoo Mamady. war na si bëre yaakaar naa combat yu ñu tëgg combat ay espoir la ay xale yoo xam ne ñu bëre nag uh-huh. boo xoolee six combat xale yi mosuñu bëre hmm. di ngeen si bëre. côté animation bi ñun ñoo kon animation bi maa ngi si waa kër Likki Mbuub ndax yëmbal lan dëkk. Lick Mbuub ku ko xam ni yàgg na tëgg ay làmb man nee naa yëmbal laa dëkk doomu yëmbal laa lépp lu may def lu ne dem si boole waa yëmbal dañ ne kuy waal yaa daa fekk sa dëkk mais man nee naa sama lépp yëmbal la ku may tëggal yëmbal la dëkk may wayal yëmbal la dëkk ñuy def animation bi yëmbal lan dëkk waaw. loolu am na solo prix bi ñaata la. mille francs ak 5000 di si woo samay partenaires si nekk yëpp su mel ni Catalina borom Tampico borom King mu may jàppale si bis bi di ma si accompagner bu baax a baax Mamadou Dia nekk Tivaouane Peulh yor agence immobilier aussi tamit jàppale na si bi bu baax a baax di si woo Abdoulahat borom buntu Pikine di jaay ay pono nekk buntu Pikine moom it jàppale na ma si bis bu baax nekk sama sponsor di ma jàppale Pape Matar Lo suma frère la nekk yëmbal nekk yëmbal nekk nekk Zador mais yaakaar naa moom Zador boolewuñu moom doomu yëmbal la aussi tamit muy jàppale waa yëmbal yëpp nag. nit ku baax la kay Pape Matar. waaw ñu dëkk yëmbal mu ne ma Ama Dia yow sa bis dama siy tax bu dara su ma rakk nga ñu dëkk yëmbal dañ ne ku yàlla daa fekk sa dëkk tëggul mais jàppale na ma si bis bi nag ba ma gis sama bopp bu baax a baax même bu ma sponsorisé wul mais yëkk na ay moyens jox ma ne ma man maa ko jàppale si bis bi kon ba Pape Matar ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko wax wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax si moom kontaan naa si yow. kontaan nañ Lamine wax dëgg yàlla kontaan naa di la ñaanal jàmm yàlla na la cat si yaxlu daal man loolu laa lay ñaanal quoi jaajëf merci.